ñu am di jàmm ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan suñu boroom mu faj seeni ajo saahiran ba baatinan bés bii bés bu rëy la ci ñun bésub sant yàlla la ni ma ko waxee ca jàkka ja léegi wala ca kër sëñ ba nit juddu na toogu fi diir bu jar bu bu bu tax mu mën fee denc ba fiy def lenn kon bu la yàlla mayee nga judd gudd fan tekki man am soxna ba am ci njaboot ba mën fekkee bés bi ñu leen di joxe wala bi bi nga leen di jox loolu sant yàlla rek moo ci war kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci lim ñu may lu mel noonu Eh, ginnaaw bi nu sante mbokk yi sant waa kër Ndeye Thioune ak njabootam sant waa kër Moustapha Thioune ak njabootam Ndeye Thioune ak Moustapha Thioune benn la sant sëriñ Touba moom laa war a jiital sax sant sëñ Moussa Nawel ci taxaw gum taxawu ak boole gum boole ci boppam jël kër gi def ko muy këram jël njaboot gi def ko muy njabootam te loolee lu mu doon na ca maam yàlla sama tonton Cheikh fàttali na ko sëñ Bas Fall fàttali na ko depuis maam ya ba léegi jaxasoo bi fa mu tàmbalee sori na yàgg na ba tey te dara yàquwu ci tey la gën a baax tey la gën a jag tey la gën a rafet soxna Reye Thioune itam liggéey ci liggéey bu rëy bu ñëpp seede ndax ku xam soxna si xam ni sëñ Touba rek mooy itteem ku ni sëñ Touba nag munoo sa xel munul dem lu dul ci yàlla ak yonent bi ndax sëriñ Touba moom loolu la rek mooy islaam e, sëriñ Touba mooy El Hadj mooy kër diine yëpp ndax diine ji benn la e, du ñaar du fukk du ñett benn yàlla la ñuy jaamu ci lu benn yonent la ñuy wéy ñun ñëpp yàlla sunu borom nag kenn ku nekk am na lu la cërale e, waaye du yàq sa cëru morom dara. Eh, ñuy sant kon sëriñ bi bu baax a baax eh, di ci teg nag Balla Mbuub mi nga xamante ni moo jur Awa Mbuub ci fartas yàlla ak sunnas Muhammad eh, ni ma ko waxee ca jàkka ji léegi rek rafetal na ba nu jëflantee ba nëgëni mësta jóg ci di rafetal mësta xëccook man dara ci awa mi awa itam ñëw mottali ko ba mu mat sëkk ràññelewu maat ak baayam ji ko jur ak ji ko jurul man la gën a sax teg ci kaw laay wax man la gën a jox cër du def lu ma yëgul du dugg lu ma yëgul mu yem képp ci sama loxo lu ma fitnaa lu ma jaaxalu ma keroog ba mu ñëwee ne ma am na ku may bëgg ma ne ko ah mosoo maa wax lu mel noonu de kon soo demee ba wax ma ko loolu de mu li mu firndeel mooy yow mi bëgg nga <laughs> waaye comme bëgg nga nag te man xam naa ni doo caaxaan xam naa ne ñàkkoo fayda xam naa ni itam xam nga lu baax kon soo ma ne bëgg nga nit ah kooku dinaa sawar recevoir ko na ñëw mënoon na ma ni bàyyi ma ma dem waxtaan ak sama papa mënoon naa jaar ci Balla door maa yëgal waaye Balla mii mag ko njëkk a yëg mag ko yëgal sax laay wax <laughs> loolu firnde la ci li may wax inventé wu ma de li may wax lu am la sama bàmmeel laa taxaw euh, soos ay wax weesu naa fu ma koy defee li may wax dafa am rek moo tax ma di ko wax bu bés jotee nag da ngaa war a seede la nga war a seede ba ma waxee loolu sëriñ bi ñëw ñu gisee ba ñu gisee ma ne ko ah yow yaa bëgg sama doom na nga xam ni kii ngay bëgg day ku sori ci ñun la li ne ci moom nag. xëy na bu ñu la koy wax sax day mel ni dañuy tiitu wala dañuy puukaréewu waaye daa la xamal ni kuy wër lu baax daal ba yem ci moom boo rombee lu baax taxu laa jóg ma bàkku tuuti itam soo bëggee suñu doom du ñu jaaxal nag <laughs> ndax suñu doom daa neex a bëgg <laughs> macha allah <laughs> waaye yow mii ma gis nag man am naa ci yow yaakaar waaye nag mënu maa joxe sama kàddu nag ndax kàddu gi dafa am ñu ma ko bokkal balaa may mën a sori foog nga bàyyi ma wax ak sama ñi ma war a waxal ci loolu lañ nekk di ci nekk di ci nekk ba sëriñ bi jot ci soxna nee na jot ci ba moom mii mu jot ci ñu bokk defandoo lépp ba tey Balla jërëjëf. ñu yéen ñëpp ku ci teew góor ak jigéen mag ak ndaw man mii di wax nag Talla Mbuub laa tudd El Hadj Mbuub topp ci Balla maag moom ñoo bokk benn baay maa topp ci moom et ànd aussi ak sunuy rak boroom mbuub ak Assane. ak ay magu awanaan la ak ay rakam ñoom ñëpp ñoo ngi ci bis bi teew. maa ngi sant mbooloo mi yëpp. Eh, nag nee na mi ngi sant mbooloo mi yëpp. waaye dañ koy tàmbalee ci yàlla. nee na nag cant gi dañ koy tàmbalee. ci mawlaana tabaraka wa moom mi nu amal ba ñu am. moom mi ba toog tey ci bés bi ba toog tey ci bis bi mhm. mu ànd ak wér ak kàttan. mu ànd ak wér ak kàttan. moom la ñuy jëkk sant. moom la ñuy jëkk sant loolu yàlla na yàgg. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di julli ci rasulullahi sallallahu alayhi sant maam yi ak wayjur yi. di sant maam yi ak wayjur yi. ndax ñoom lay njëkk sant. ndax nee na kat ñoom lay jëkk sant. bu yàlla defee tey ñu doon i taalibe. nee na bu yàlla defee tey ñu doon ay taalibe. bokk daaru minam. bokk daaru minam. maam yi ak bàyyi tax. maam yi ak bàyyi ñoo tax. kon ñoom lay njëkk sant ndax ñoo tax ñu am kon nag ñoo ngi leen di sant ñooñ ndax loo tax nu am lii nu am. mujjee ak cant gi nag sëriñ Touba. mujjee ak cant gi nag borom tuubaa mi nga xam ne moo waral lépp. bi nga xam nag moo waral lépp. ñu yaakaar ko fépp. ñu yaakaar ko fépp. yaakaar ko ci lépp. yaakaar ci lépp. kon cant yàlla gi. kon cant yàlla gi. moom la ñuy tàmbalee. moom la tàmbalee. mujjee ko mujjee ko. di sant mbokk yi fi teew yëpp. di sant nag mbokk yi fi teew yëpp. waaye di beral cant nag Alassane mii. waaye nag di beral cant nag sëñ Alassane Thioune mii toog. ak mbeen mi nga xam ne moo jur. ak mbeen nga xam ne moo jur awana la. mooy baayam. nee na moom mii nag mooy baayam. waaye ñoo ko yar. waaye nag sëñ Alassane Thioune bi moo ko yar. lu baax li am ci moom tey jii. nee na lu baax li ñu am ci moom tey jii. ci seen loxo la jaar. ci seen loxo moom ñii la jaar. gannaaw yàlla gannaaw yàlla. yàlla nag mën na laa may wërsëg. nee na yàlla nag mën na laa may wërsëg. waaye barke ak baax. waaye barke ak baax. da nga liggéey. nee na kooku nag da koy liggéey. yar nañ ko yar bu baax. nee na yar nañ ko yar bu baax. waaye moom teg na tànk ci lu baax. ah waaye moom mii di awo tamit teg na tànkam ci lu baax. lu koy sàkk. lu baax nag nee na dañ koy sàkk. yàlla du ko may kenn fekk muy nelaw. nee na nag duñ ko may kenn fekk muy nelaw. kon nag kon nag. wax ju njëkk ci cant yàlla la. wax ju njëkk ci cant yàlla la. waaye bi ci tegu nag seere la. waaye nag bi ci tegu nag ay seere la. seereel ko awa nu seereel ko sunu doom ji di awa. wax naa ko léegi yaru ko. nee na wax na ko léegi yaru ko. waaye nag lu ma sori sori xam naa waaye nee na nag lu mu ko sore sori nag xam na jikkoom. du baax. juddu baax. juddu baax. tegu ci yoon. tegu ci yoon. loolu lañ gis ci moom nee na kooku loolu la gis ci xale bii di awa naa la. waaye nag jomb ko. waaye nee na nag jomb ko. ndax ni ko Alassane waxee rek. ndax ni ko Alassane waxee. ci lu baax rek la la fekk ci lu baax rek la fekk. ay waajur yu baax. ay waajur yu baax. ay maam yu baax. ay maam yu baax. ay sëriñ yu baax. ay sëriñ yu baax. kon nag kon nag. yoon waa ngi woon noonu. yoon waa nga noonu. waaye nag tegu na ca. waaye nag alhamdulilah tegu na ca. la fàttalee yoon te teguwoo ci. nee na buñ la fàttalee yoon te teguwoo ci nag. mën ngaa bañ a baax mën ngaa bañ baax. baax kenn du ko doon. ndax nee na baax nag kenn du ko doon. dañ koy liggéey dañ koy jëf. dañ koy jëf. waaye def na ko waaye alhamdulilah moom i def na ko. xam nañ ci moom bëgg lu baax. nee na xam nañ ci moom nag bëgg lu baax. ak sàkku ko. ak sàkku ko. am na diine. nee na am na diine. ci lu ma gis. ci lu mu gis. am na taalibe. am na taalibe. ci lu ma xam ci lu mu xam. ñaar yooyu mën naa ko ko seere alhamdulilah nee na ñaar yooyu nag ñoo ma ko gën a mën a xam naa nee na nag yéen ñii ko yar yéen ko gën mën seere waaye nag moom mi xam na ko ci loolu xam kon alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sama taawa taawam la awa mooy taawu Balla waaye taawu Mbeen ak Alassane waaye tamit mooy taawu Mbeen ak Alassane bi xam naa ne nee na xam na ni. la ko war ci kër Alassane mii. la ko war ci kër Alassane mii diggante moom ak ay rakkam ak i diggante moom ak Alassane ak ay rakkam ak waajuram di mbenn. la ko ci war yëpp def na ko. nee na la ko ci yëpp def na ko. waaye noonu la ko defee kër baayam. waaye nag noonu tamit la ko defee nag kër baayam. ñi nga xam ne ñooy ay rakkam. nee na ñi nga xam ne ñooy ay rakkam. bëgg na leen. bëgg na leen. yiir na leen yiir na leen. dimbale na leen. ndey mi nga xam ne ñu ngi ci kër ga nee na ndey mi nga xam ne ñu ngi ca kër ga ñëpp la respecté ñëpp la jox cër def leen ne mbeen mi def leen na waajuram wu jigéen di mbeen yéen ñii nga xam ne yéenee samay rakk ñun ñii nga xam ne nag ñooy rakku Balla ak samay mag ak sa ay magam kazalika kazalika bàyyi la leen bàyyi la nu def ñëpp la ñëpp la wekk ñëpp la respecté ñëpp la respecté cër boo am cër boo am jox na jox na la ko kon nag jomb ko ah nee na kon nag lii jomb ko li ci kanam rawuli bët te nee nag li ci kanam rawuli bët ñu koy ñaanal daal ñu ngi koy ñaanal mu barkeel mu barkeel dana ñu fekkee tey fay sëy bi ñu fekkee tey bokk ci sëy yi gën a barkeel bokk ci sëy yi gën a barkeel ñi nga xam ne ñoom ñaar ñi bëgg nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñaar ñi bëgg nañ ko ci yàlla defal nañ lu kawe njort yàlla defal nañ lu kawe njort ci barke borom Touba ñu koy ñaan bu baax barke gudd gu màgg gi tamit ak gi nag ah kazu rajab bi na yàlla def. sama xel dal na lool. nee na alhamdulilah xelam dal na. ku am doom ku doom. mu baax mu baax. nga xam ne boo fi jógee mbaax googu wéy. mu xam ne boo fi jógee tax mbaax googu mooy wéy. ci ci ci ci ci njaboot mu yéeral la ko. li nga ko. alhamdulilah sant yàlla. sant yàlla yaakaar yaakaar naa ko. te koo nag yaakaar na tey day bis boo xam na nag tey jii day bis boo xam mënul wax. waaye daf ci am yoo xam ko waaye yaa koy waxal sa bopp. waaye daf ci loo xam nag moo koy waxal boppam. wax ju jógee ci xol ndax wax ju jógee ci xol. na ne fa ci xol la jëm ci la jëm kooku ci xol la jëm loolu daal alhamdulilah a ñàkk a wax alhamdulilah leen lii mënu ko ñàkk jaare la kenn nee na ci man mii nga xam ne nag yaay sama rakk di sama porte parole ma ngoog maay rakkam di porte parole am gannaaw gi nag gannaaw gi suma xalifa nga ne di duudu sunu xalifa nga ne mooy duudu moo wax gën a am fasaa nee na moo gën am fasaa pour wax ci wax ji danañ ko wane ci kanam te dañ ko wane léegi ci kanam loo xam ne moom waaye daf ci am loo xam ni faw ma tàbbi ci foog mu tàbbi ci moom mii looloo tax ma yëkkati looloo tax mu yëkkati kàddu yooyu gërëm mbokk yëpp mi ngi gërëm ñëpp Eh, nee na Ndeye Fatou ak Mbène. nee na Ndeye Fatou ak Mbène. sama sama séeréer la. ah ma ngoog ah, ah, ma ngoog ah ma ngoog ma ngoog ma ngoog. abaa ñoom it bëgg niñ mel ci aw ak. ma lépp rek ci baaxam la. nee na nag lépp rek ci baaxu xale bi la. xale bu yemee fa mu war a yem. Ah, xale bu yeme fa mu war a yem. wéeg ñëpp ñëpp bëgg ñëpp ñaanal ko ñëpp sant yàlla. Euh, yàlla na yàlla lafal leen cat. ah Balla. maa xam ne moom. Balla sëñ Mohamed. sunu taaw nag lan la dénk Mohamed. man sama waajur wu jigéen naar la. Ah, naar yi nag bu ñuy mayee sax soxna daan lay woo yenn saay teg la ni la ndax gis nga liin lay may. Ah, waa décrire la ko. naar yi bu la may soxna dañ koy indi ñi lay nax gis nga leen la may man bi ma ñëwee léegi maa ngi wax lu nu joxe si kër sëñ bi sax Mouhamed war nga dolli xeeb nan ko war nga dolli kon alhamdulilah mais bala boo gërëmee ñi man daal ne ne laay gërëm maa la woon ni la jox ma numéro am ñaari fan a ngi nii mënuma reer mënuma ndékki bërki démb ma egg hôpital ba mu toppatoo ma lool ba macha allah defe naa ne bu nu reer yi tegoo léegi dinaa ci mën xewlu kon nee na maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax mais pour nii sunu mag yi dafa am sunu benn xarit bu ñuy wax Duudu Juuf yàlla na ko yàlla yërëm amoon na soxna ndar yàlla weddi mais amoon na ci njaboot mu dem fa di xëccoo njaboot gi baayam woo ko ni ko bul xëccoo njaboot motal baay. motal baay. li ko indi. dama gis xale yi nin ko taqee mën ko mais grand yow sa doom yi dañu wu ci yow trop. te boobu man xam naa ni moo seen waajur ji nekkatunu mais mën ko sa doom yi dañu attaché wu. mun ma nag sama baay moo am lu ma waxoon ci xale yi. ndax demoon naa fa di leen xëcco mais bàyyi ni ko matal bàyyi rek. matal bàyyi bu matee ñëpp ñëw mais bala xale yi attachement ba nu am ci dudd sax. macha allah ci dudd boobu. alhamdulilah. Eh, sëñ cuun moo yar xale bi waaye yow di sant yàlla mat nga bàyyi nag mot nga bàyyi mat bàyyi moo waral lii ah baay moo waral lii kon nag yàlla ko yàlla barkeel euh, El Hadj Cuun dana yëkkati ay kàddu ndax sànq daayira sët yi nga wax taxawal nan ko sëñ Muntaxa jox ko tur muy mat Matlabul Fawzeyni mhm. moom mii mooy jëwriñ bi et amuñu aujourd'hui lu ko ëpp ci Ndakaaru mhm. moom mi amuñu lu ko ëpp. Euh, sunu doomu bàjjan la. dafa El Hadj ñun ñooy jox sa Sadio Ndiaye. waaw waaw kon moom bu bis bi amee. Eh, jot gaa amul sax ndax euh, gaa yi dañuy dellu mangoog ah. maam laa mais jaam ji laay toppatoo. ah yow jaam ji ngay toppatoo. <laughs> nag maamu awa bi ndey ak bàyyi. Mm. kon moom am na cër yi bare na ci macha allah kon bu lii amee moom Eh, eh, foog mu yëkkati kaddu nekk taalibi sëñ Touba waaye dafa la gën a nekk taalibi sëñ Abdou Hakim ah kooku dafa naa ne kon El Hadj Mamadou jërëjëf jërëjëf fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar في كل سهر وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر السفر